Ndeysaan Balde Ada Fass a ngongu ànd ak anti ay anti Ndeysaan Ada ngongu déggal waay Balde ak Soobuur Balde Anta ak Ada Fass mais Anta yaram yi daa tàng yàlla ànd ak ñun yàlla yàlla ànd ak ñun kay lool Ngongu Balde tey la 31 octobre Balde xool arène nationale ni mu mel tey ak mbooloo ah Ndiaye production jaaraama yéen macha allah bés bi taaru na te bu la ne day door a commencé xoolal kii yëpp dafa fees Balde Balde jëlal ma lii xool stade bi ni mu mel xool arène bi ni mu mel tey zone ma ay nit lépp nit ñaa toog xoolal. yaa gis loolu Babacar Akole moo la koy nettali Baldé koy filma eh waay eh Baldé lamba ngi yow yaa koy tëgg moom maa koy tëgg noo tudd maa ngi tudd waaw di doomu Faas dëkk fan dëkk Faas Delorme Delorme waaw am naa salam Faas tey loo koy tëggal lu bees sax laa koy indil lu bees Tapha Mbeur dama koy indi lu métti ay tànga kanam dama leen indi lu métti après ngeen xool à suivre la barke yu ñu ci bi yaa xool public bi Parcelles Assainies ana waa Parcelles nooy va. tëggu tëggkatu Ada Fass. waaw nee na da di tëggal lu da leen di maanaam da leen di dugal boîte vocale tey ci tëgg ba pare mbërëm tant seen mbër. ñun si tër si tëgg lañ yaroo. si tëgg lañ yaroo. si lañ màggee. dañoo judd fekk sa papa di ko def. kon ñu tëgg mënuñoo jaaxal. tëgg pin la cee ak gin ak mbax. loo yor tëgg kon mënuñu tëgg lu yem tey looy tëggal Tapha Mbeur barki Serigne Babacar te dinañ andi lu bees sax lu tax ba ci kanam boo yëmbal a ngi mais boo yëmbal yaak Mor Kankan combat boobu tey nar naa garaaw de incha allah dinañ gis lu neex ci biir géew ah. lu leer laa xam nga Mor bu baax Mor xam naa ko wax amatul lu ma koy wax ji des. wax amatu fi yoon. mën naa gaaw. loo ci xalaat rek mën ko koo gis combat amateur la te. ana waa yëmbal waa yëmbal yaa ne. ana waa yëmbal yi. ana waa yëmbal. ana waa yëmbal eh waa yëmbal waa yëmbal. waa yëmbal. ndeysaan sëñ Babacar lañ ko sànni ti set ba. oh lii na yërëm. ak mbaxana ñii ñooy waa yëmbal xool waa yëmbal xo eewa eh lii daw na yaram de ki ma bëgg la ma jox. loo gën a bëgg lañ la jox. tàllal ko. oh taw na. bër ci loone. waaw ah, sant noo ñëwee tey. man ànd ak sama mbokk rek. fu ñu la jàpp gan gi ko dem ñibbi man doomu buun ba ak Pambal barki axuraanu karim. gan gan ngay bëreel yow. maa ngi jini mais dama xaw moom du jini moom kaña la dama koy jaaba dugalu suufu bërg yi dana moom lan jini nee na les jini ah. ko yow doo jini jini du ñëw ci stade jini day toog fële di liggéey lu mu doon moom moom di kaña moom kan mboota dama koy mbootalee xama tegu foofu noonu ba ma ñëw billaa du yaaga sax maa la xawa ma la njaag bu pambaal ma njaag bu pambaal ma njaag bu pambaal nuroo njaag la magicien voilà noonu la demee wala ma ne Saint waa. mais Mor ci si sant bu baax. am na jàmm. am naa jàmm bu baax. ah sant bu baax a baax a baax a baax. yëmbal nee na yaramam tàng na de. waaw amul benn problème baa mu dugg ci biir géew bi rek. Ah. incha allah ci kattanu yàlla. kon mën naa gaaw combat bi. waa combat bi mën naa gaaw. ndax combat ah, combat amateur la. mën naa yéex tamit lool. Ah. waaw. yow bu la ci gënal. bu bu bu mu ci bu mu ci wax rek. ñu def ko si. incha allah. kontaan ci yow. kontaan ci yow. ba ci kanam. ok. ndeysaan Ada Fass sotte ko na lu weex tàll am soow waawaaw jox nañ ko ñaari sengoor la Ada jox nañ ko ñaari sengoor xool soow mi laa ilaha illallah xoolal lii balde balde xoolal lii balde xoolal butéel yi ak benn laytan ci suuf ay balde làmb ay làmb Kona Mbaye jël na Lac Rose Kona Mbaye yëkkati na Lac Rose oh Balde Kona Mbaye yëkkati na Lac Rose ba ca kaw ba muy seen waa mu dóor ko ci suuf yëkkati dóor kenn du ko min boobu jël jël bu doy waarangu teekul mbër mi ah mbër maa ngi lakk di ñëw waay voilà li yàgg na ak déstabiliser xale bi père sa yaram daw na de. waa gis nga rek damaa dugg si lamb gi rek. tombeeg aada di di tuus. may naa taxaw jàkkaarloo ko moom ndax pour xool. musuma si daan combat ma ne naa ñëw assister xool ce qu'il va donner. mu mel ni doomu Fass moo wàcc di xale ngay deuxième tigre de Fass Fass di benn lu la lan moo la yëngal ba nga wàcc. en fait comme que tey dama ñëw pour xool si d'abord suñu ñaari talent si suñu ñaari doom lañu. tolloo jamono nekk bu nekk bis nekk bis bu rëy si ñoom su mu nee tëll nag dajeeg Ada Fass di bakku damay wut respect wu taxaw gis ko mu tuus au moins bu siggee jàkkaarloog man gis ma loolu dafa am importance ça n'a rien à voir ak combat bi jëm waaw. loo koy dénk Ada. ah li ma koy dénk mooy mu xam ne bis bi bis bu mag la eh, nekkul combat bi gën a mag ci combat mi waaye bokk na ci combat yi gën a mag ci combat yi xamante ne bu ci amee ndam mën na ko jàllale. de même que adversaire am aussi même chose la ñoom ñaar dañoo témboo ci bari ñu tolloo taay tolloo gabari tolloo xew ci jamono ñu boole leen kii daan dem kii daanu toog xaar. mais seetaan nga ko mu bokk Père Tapha gis nga ko loo ñu a wax. non ba léegi ba léegi seetaan nga ko parce que ma yéen ma intercepté ma xaaree ba ma seetaan na pare nag. waaw mën naa joxe sama xalaat ci moom mu tuus. ndax bisamu loolu du bisam. waaw ci gis li nga jot a gis état de forme. waaw li ma jot a gis dèjà gis naa ne calme na. serein ñi ci topp ñëpp di fekk tamit. dañ koy déconcentré rek. parce que mbir bu ñëwee ki lamb ji tuus. dafay tuus moom kese. bàkk moom kese. dem ci kii moom kese. mais ñeen ñi bëgg a fekk ci yëpp pour spectacle. dañ koy que dèjà bi ñu taxaw di concentré du stade ak am ci la bokk nag waaye bu doon dama ko indi maa ko déedéet yow rek yaay dem concentré ci li ngay def mais li ngay dégg nii li ngay dégg nii waa li boo xamante ne ndeysaan ah li ma dégg de wax dëgg yàlla Gris Bordeaux miinal nañu ko Mor Ngel miinal nañu ko képp ki écurie Fass miinal nga ñu ko donc vraiment moom mi ngi Ada Fass mi ngi nekk di yëngal li nga xamante ne mooy si didu waa Fass yi waaw mais nag duñu ci Ada Fass di bàyyi adversaire am adversaire bu bu saf nit ñi bu ma neex man mii tamit bëgg a bëree bari di sonn ci làmb donc ñoom ñaar ñëpp buñ dee analyser si ñoom da ngeen di yemale ay chance waaye yéen a bi ci suñu xol nag ñun ñoo ko xam ngi dañ jak suñu bopp salaamaaleykum ndaysaan lees dina dóor na saar lees dina dóor na saar bal day filma lees dina ee eh, saara ngoy dóor lees dina de saara koy dóor de lees dina bañ na wàcc ca suuf la lees dina dugg saar lal ko waa lii lan la nii lu xew arbitre lu xew lu xew lan moo tax mu àtte combat bi. daan na ko daan na ko léegi Sarr daan na ko wala lu xew lan moo xew parce que nag a ah, daa mel ni Sarr daan na ko de toppal ma loolu balde ba xam lu arbitre bi di def ah woy Sarr daan na ko. waa mais président maa ngi lay ziar. Serigne Babacar delloo ziar. dimanche comme tey costume nga maye tey nga ñëw defaat sa turki njaareem la xaw ma sa yére olof bu rafet. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla gërëm ko félicité nag sama doomu ndey bi nga xam ni moo tax ñu teew fii muy Fallou Ndiaye làmb ji rafet na lii xajul Iba Mar Diop kii buñ ko fi defoon Iba Mar Diop ay problème rek la ñuy gérer mais sant yàlla di ñaan yàlla rek ñu commencé ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin et que làmb gagné ci daal na bu jeexee ñu ñibbi ci jàmm ak salaam. bu mel ni ren ba tey ay combat yu neex rek ngay gis. waaw lii dafa bokk ci ñun làmb dafa bokk ci Sénégal euh, donnuwuñu ko fen ñun ñoo ko moom c'est notre propriété. et ñi fi nekk di promoteurs yi gàcce ngàllaama maa ngi profité di féliciter képp kuy promoteur parce que nag làmb yi nga xam ni teg nañ ko fi rafet na neex na et puis yi loolu la ñuy wër li ñuy ñaan rek mooy. na ci ñëpp jàpp ba làmb gën a taaru jërëjëf. yaa ngi waaj la 5 décembre. ñu ngi waaj la 5 décembre parce que. ñëpp a ngi koy waaj. waaw seen 5 décembre yéen journaliste yi dama ko jëloon teg ko seen loxo loolu dara dañu ci donc ay fan yu néew incha allah danaa leen woowaat jëlaat lépp teg ko seen loxo noo leen ko sentir rek nañ ko defee noonu. loolu ci incha allah dinañ ci def la nga bëgg. ah. dañ ko def li nga bëgg bu soobee yàlla. waaw waaw amul problème incha allah de toutes les façons la ma la waxoon rek sotti teeg def ci la mënuñoo dem sans yéen mënu leen dem sans ñun. jërëjëf président kontaan a borom Leewtoo production. amateur waaw sama Babacar. waaw ñu ngi si jàmm Babacar ñu ngi la nuyu. donc du nuyu waa Equivox du nuyu sa collègue yi fi nekk yëpp ak du nuyu bépp amateuru làmb. donc ji ngi nii macha allah. mu mel ni gëjoon nga làmb tey ñu gis nga ñëw ci làmb ji. waaw c' est c' est que Fallou Ndiaye suñu xarit la comme yeneen promoteur suñu xarit. mais comme report bi reprendre nañ làmb ji peut a am jot pour ñëw pour assister si làmb ji parce que si làmb lañ bokk mënuñu ci génn. Tapha Tine Boy Niang fu mu fu mu toll yaa nga yaa ngi koy waaj. le 19 décembre la incha allah. fii ci arène nationale. incha allah rabi. Tapha Tine Boy Niang. incha allah rabi le 19 décembre incha allah. 19 décembre. 19 dimanche 19 décembre incha allah ci arène nationale. waaw yal nañu ko fekk. amiin amiin. sengoor yu weex Dakar la jóge fils de Lirou jóge école de Lirou dóor ñu nga ca de daw na jël ko daw na jël ko da koy boot mu bañ boot ma da koy boot galgal dox moom waaye bañ na de bañ na de waaw waaw foofu baaxul foofu baaxul foofu ñaari mbër yaa de ko de Lirou Diane ak bébé Balla Lamsar ma xool ñoom ñaar ku ci yor jikkoy Balla Gaye ak jikkoy Lirou Diane kii boppam la tudda Balla Gaye Balla door na Lirou Balla ak Lirou Balla ak Lirou eh fils Balla ak Lirou eh Lirou rëpp na jóg nañu. arbitre soufflé na fils de Lirou Balla fils de eh, jël na ko eh fils de Lirou na bébé Balla. ah ah ah fils de Lirou daan na Bébé Balla Bébé Balla waaru looloo yësi déet déet déet déet déet déet déet doy na Tibles wàcc na gauche Tibles moom moo nekk gauche waaw waaw boo koy tibles Lamine Lamine <laughs> ah ah ca docteur ya mbaa panu bi du père tibles dem na faju ba ñëw de arbi danga ko daan taxawal yow tibles ñaari mbër yaa nga ca de daw na jëli ko Tibles jëli na ko jël la amagul de bëreel Tibles jël lamb ji jeexagul ñu ngay door Tibles Tibles daa yaakaar ne lamb ja jeex na ay waay Tibles la nga amoon mënoon ngaa jeexal combat bi est-ce que diñ ko amaat ñu nga ngay xeex Tibles jël na avertissement moo jóge Kër ma Massar mbooloo waaye Tibles li mu def lan la Tibles daan na ko ah way Tibles daan na ko ay waay Tibles daan na ko hop hop hop xale bu Kër ba ay waay daan na ki nga xam ne nii ah Tibles. Matar fekkee mujj loo ciy doon. mais Fallou. waaw Fallou Ndiaye. Fallou tey macha allah. Babacar waaw mbégte rek comme ni ñu ko waxee ci biir max kontaan rek léegi nag xanaa maag asan il faut ñu xool kan mooy un beeg. Assane moom Assane moom yaay un. day xaar de. non man te loolu kay ah, kenn dootu ci wax. yaay patron léegi. il faut mu xaar. waaw mais noonu la Assane sama mag la sama xarit la dama koy tooñ. mel ni doomu bàjjen ci moom. muy daanaan. waaw mais ñu ngi sant ba Babacar. di sant sénégalais yëpp. gis nañ seen taxawaay. ndax lii Sénégal la du fàllu. kon maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di wax ne daal naa mbégte. te sant naa it baax. sant ñëpp it rabal bi fan la jógee. ah rabal bi fan la jógee. waaw li Yaxya Jóob Yékini moo fi jaar. moo tax bisu mel nii. fii la ko joxale woon. jeex na daal fii ak Jóob masale fii tey. incha allah ndeysaan Fallou Ndiaye ngoog. ay ziar. bëggee rek bëggee. non kontaan nga tey. non kontaan naa si sama xarit. sama doomu nday Fallou. Fallou Ndiaye aw ma lu dul ko sant ko gërëm ko. waaw yal ko yàlla defal jàmm. waaw Fallou. tey boo duggee stade bi taaroo nii looy waaw kontaan dara laa sam mbër mu doon bëre ba bàyyi bëre tey ñu tëddee la bés bu toll nii du sant sama mbokk yi ma àndal ku su xam na ne père maa lay ziar bu baax a baax ñu ngi lay ziar bu baax jaajëf jërëjëf jaajëf Samba kontaan na jaajëf jërëjëf soo loo yëg loo yëg kontaan rek la am boo xoolee njaboot gi ma àndal nii ñii maak ñoom dañoo yàgg duñ tey depuis làmb ba léegi la mbër bi bëree ba bàyyi bëri ñu dox la bés bu toll nii aw ma lu dul sant Fallou njaay di ko gërëm di gërëm góorandoo yi tey dama xol dafa sedd lépp tey kontaan rek laa am tey di wax ni wax ñaari mbër yi loo leen di wax ku gañe sa drapeau ñaari mbër yi moom wax dëgg yàlla déggante nañu am na lu ma jëflanteeg ñoom te incha allah du ma yem ak ñoom fii ku jël bi ak ku ko jël yëpp pare naa pour taxaw leen jàppale leen. jërëjëf jërëjëf. ndaysaan Mor Kankang ak Ngongu yenu benn njaq bu ndaw kookoy Mor Kankang moo war a boo yëmbal fan la koy toj fan la koy toj soufflé na Karbala ak Bouba Ada Fass a yenu benn ndaa a sotte comme soow fu mu jëm oh lii doy na waar la ilaha illallah ñaari mbër yaa ngay lewaatoo Karbala ak Buuba xeex Karbala ee eh waay ee eh waay Aliou Kanka Mor Kankang waay ay Balde Cukraay waaye ñaari mbër yi dey Cukraay ku ñu de sànni ko ko loolu la Buuba def Karbala dóor na ko ay inde dal Karbala dooraat na wala boog buubaay door Karbala eh Karba tee nga xeex wala nga seetum pexe door gëdd mu koy door ay waay booy wàcc tibb tànk anamu bëreegu leen ba tay de xeex rek ngeen di def daw na jël ko mu bañ fàq ko ew eh waay yaawu jaal waay dóor dóor xale yi seen bëree xeex bi gën a wëri ka bi moo tax seen i combat xaw a yàgg gis nga une deux yi mais daw na jël ko Karbala daan na ko Karbala daan na oh, da doon xeex Balde buuba la doon xeex Karbala waaj daw tibb ko daan ko ba mu jot jaaxaan toog xool Karbala mu ngay joow Karba ngay joow Balde xanaa xam nga géej waaye ay kankurang nga xam eh eh xool kee di ñëw xool. tey la ko gémi yi gaañ xool ma rek jël ko gémi ya rek jëlal rek xool ko gémi dañ koy tàqaleeg moom am nga problème am nga problème am nga problème gémi yaa ngi koy yóbbu tey ngay dee tey li ma jaaxal Assane Ndiaye turki njaareem la ñëwee Assane tey ni nga ñëwee macha allah sab ñaw rafet na a sa tisi macha allah kaar waaw merci mon ami Fallou Ndiaye sama sama frère la su tëggee nii rek laa mën a def lu ma xam ne su ma ko defee mu kontaan ma def loolu yaakaar naa ne su su xoolee ni ma ñëwee ci làmbam dina bëgg di ko ñaanal lii mu jikkoo ndaw la di liggéey comme niñ ko waxee woon rek sénégalais yëpp kenn ku nekk mën na bay sa waar ci dëkk bi mais na rafet silwise lii dafa rafet Babacar di ko ñaanal jàmm ak salaam tànk yim aw baax na lool nañ liggéey rek bàyyi wax ji waaw. mel li sa digganteeg moom ne na léegi moom mooy sa ruwaa non sama ginaaw la topp sama rakk loolu moom ala kulli al parce que nag amitié kenn demagul fa de ami yaa fa dem amitié demagul amitié affaire bi mooy da ngaa génnati fu doy waar Assane fi nga génnati fan laati non dama ko doon nëbb ba combat fallu yu jàll mais naa la xamal ne lamb gone koy def xale lamb da ngay topp xale yi xam ruq reeg ruqaat yi biñ ci jógee dañuy taxawal caatu yoof Youssou Ndour teg sa yeneen ak yeneen bu mar su mar dee di nga gis yëpp bëgguma wax yëpp di ko gis di nga ne ma lii nu mu mën a nekkee mais lépp pour amateurs yi kese la nag jaajëf bëggee Ibles bëgg naa la. jaar naa la. yaa daan doomu mi nam de. waaw waaw jëli bu leer. jëli bu rëy te leer. waaw kenn du ko lu ko xaw a yàggal. bi taxu koo yàgg dem nga ci ardo de. waaw dama damaa jël kuumam. Ah. waaw jël naa kuum mais jeexalul làmb ji. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. deux victoire. deux défaites. waaw. boo ba nekk ri nga nekk. Double Less laa nekkoon mais instant maa ngi Kër Masar. yaa ngi Kër Mbooloo waaw Kër ñibbi. si waaw. ci kanam mbaytin waaw. waaw incha allah jërëjëf yàlla nekk télévision bu mag ok. boo koy tibbale anti nag écrit laa ko xamoon waaye faas la dëkk maa ngi lay ziar. di la bëggee Babacar di maa ngi sant sëñ Fallou bu wér a wér a wér. seen xel dal na actuellement presque ay minutes a tere ngeen bëre combat ñun ay doomu Fass nañu bu ko jaralee ñaar ñun jaral nañu ko fukk boobu pare na te yàlla yàlla ànd ak ñun ci barke sëñ Fallou yàlla yàlla ànd ak ñun te yàlla dina ànd ak ñun tey waaw. tàngal la ngoongu ndeysaan ñu yóbbu. mu mel ni combat bi ay sarax la laaj soose soose maa ngi lay ziar maa ngi lay booy bi tey en tant que technicien muy sa frère di sa lépp lan la war a bëree ak Tapha Mbeur waaw ñëw pour bëre rek ñu ñëw pour bëre rek bëre rek ñëw bëre jàpp loolu ko sant waa bëre lañ ko sant bëre lañ ko sant bëre ngeen am na solo aada aada maa ngi lay ziar drapeau saltike bu mag bi sunu yaay ndey Fatou Ngom xeex wala lan armée bu ngewel ak Hercule inde may moytu leen tóor mu daanu armée bu ngewel Hercule leen wan ginnaaw Hercule daw na jël armée Hercule daw na jël armée da koy dóor di ko wër war ko di ko door hee Hercule na ko duma la bàyyi armée bu ngewel fi nga baaxul armée bu ngewel war nañ la ndombo hee war ndombo penalty bi lamb nga def loolu wóorul ay waay Hercule na armée armée bu ngewel ndombo armée bu ngewel ana sa armée ya ana basokaaya ak lacrymogène yaak liif ya ee foo doon xool ba nu wër la ndombo dina ca génn wala da cay génn de wala da caa bëgg ca de waaye armée ngi armée bu def nañu fi militaire Hercule Hercule Esca Hercule Esca laa ilaha illallah bi combat armée bu mii day daa mel ni gis liifam ak i lacrymogenam waaw waaw waaw waaw na ko de gis nga boo xoolee xeex bi arme lay gën a arrangé fi mu nekk nii parce que daf koo sori te moo gën a gudd ay loxo Hercule li ko arrangé mooy combat rapproché ndax li mu amoon sax mu mën koo amaat mais combat distance bi ci xeex bi ci kaw ah bëgguma ko ci yow armé wala Hercule bokk. xam nga ne liiru jaan noppee na ñëw lamb de. bàyyi liiru jaan. da ngaa mel ni ku liiru jaan kilifa la. lii liiru jaan bu nee cur fitu bu nee cur lii moom du sori. liiru jaan ñi mu daan bari na. te man su ma nee cur dama lii ma fa daan. ay kon xam ñu ma mu ngay bëgg a bari. déggoo ma de moo tax na ñoo xam bu ñu lim. waaw bu ñu nee seen liim du sori ndax seen ndam barewul. kilifa la. man na su ma nee liim man na su jur. waaw dinaa liim. waaw ba fàtte ñu ma daan. ca yaawu jaa. xam nga kenn ku dama laa liimal par benn benn. mais que mi lay gaynde. daan naa ko neuf fois. neuf fois gaynde cinq fois. cinq yemb cinq fois. yaawu jaa bi ko wax ñaari yoon. saret bu yàqu ñaari yoon. dafay tëlee ñaari yoon. jënd jënd benn yoon. Ibou bu Njaareem benn yoon Baye Fall bu Njaareem benn yoon kon man lim laa ba fàtte ñu ma daan ba ba rek ak xaalisu Gambie Jolof ma dem Gambie daan fa way wa fàtte naa mbaru Gambie de waaye am naa fa ñaari ndam si mbaru Gambie ko Hercule daan nañ la daan nañu Hercule action la doon def ñu wàcc ci koom armée daan na ko Hercule Diogal xam kon loolu moo tax ma ne la su ma liimee waaw damay liim ba foota ñu ma daan waaw bëri na samay morom yoo xam ne bu ñu nee cur seen lim di sori ndax seen ndam ah, bariwul ah, xoolal xoolal ah bàyyi ko mu feeñ waaye ah mbër day saf xorom kon gëm nga lam la wax waaw damay waaw ba foota ñu ma daan déggoo ma de ñan ñooy say morom yow bari na kan ak kan bari na xam nga wàllu animation lamb man la woon yaawu jàll mais li nga def kera liiru jàll est jaar na yoon ma ne laay leeg laa gaa ñi ba ko sàcc ma indi leen ma maa sant sang-sang yi kon donc loolu ne bu ko kenn récupéré mais wayuma li nga def liiru jàll est-ce que jaar na yoon keroog. non dama ko brosse. mais loolu bokku ci li mu yenu muy Mor Kankang comme saaru sayu mboob boo xoolee boo yëmbal dugub la teg xam nga dugub ji ko ba pare moom la teg na la ngay seen mu mel ni kon ñaar ñii moom ah ah seen gàllaji daa mel ni est que sore na tey gis nga kii di ñëw mooy Mor Kankang loolu mu yenu saaru mboob la am ñax boo ko boobee ba mu nekku say danga ko yenu waaye moom ab sëq la ci yor teg ko ci bopp bi ñu koy sotti ay butéel waaye boo yëmbala nga nële teg sa xab dugub ba ca côté am di fecc noonu léegi ñu bëre ñoom ñaar combat bu parrain bii moom ay trophée la andi lii rangaloo nii. waaw mais li ay trophée la xam nga ñu dañuy carrière rek. lii mooy diplôme lii nag lu rëy la bu ko xeeb moo gën alal. diplôme la alal day jeex mais lii sëy sët sax dañ ko fiy fekk. mais Yandé Fallou Ndiaye dama koo jël kera mu ne làmb dimanche lay ubbi mu mel ni tey boo xoolee làmb ji ni mu mel. arène bi fees dell Yandé. mais liggéey la rek amul secret. liggéey la ñaanu waajur ak am jom ak am fulla Ndiaye gis nga dafa changé stratégie. Ah, am nu mu ñëwee mais nag xam nga loolu yëpp daa am lu ko waral yaa ngi dégg mais nag liggéey la rek amul secret quoi yàlla nañu yàlla defal ndam mi ngi doog a ubbi nag làmb nga doog am na solo am na doog a ubbi xale yi ndaw lañ tëgg làmb mel nii buñ tëggee mag fuñ jëm macha allah. ba am nga jàmm. sam sëñ defe naa ne tey làmb ji ñëw nga gis nga ni mu mel ni mu mel euh, ki tëgg moom sa digganteeg moom yaag Fallou Ndiaye. sant suñu borom rek Fallou sama rakk la ñoo bokk Bawol ñoo bokk feneen feneen maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm waaw. sa lamb kañ la. Euh, la 14 la incha allah mais avant loolu Baba Diaw mooy tëgg diggante Dibul Motor ak euh, Koyens kon loolu am incha allah incha allah incha allah kookooy ki nga xam ne. suñu président bu baax la am nga waaye ku nekk ki ñaan la waaye seen dubaay ku baax la. waaw incha allah xam nga di woo gars yëpp la set mbay lu la booleeg jéeg. kii sama lépp la kii dëkk Bawal ma dëkk Bawal muy sama lépp di sama papa di sama ne maa ngi ci wetam ku ko laal laal ma moog Aziz waaw. balaa ma jógee yëmbal yi ñëw Pikine day métti yenn saa gars yi dañu muy pousse Pikine ba yëmbal dafa métti lu may ñaan mooy bugaan bugaan deni waaw lu ma ñaan mooy ngir yàlla yéen bi ngir te yàlla tax parce que doomu Pikine laa handicapé laa mu lu ma sama bopp dara lépp day ji lu ma am ay doomu aadama ñoo ma ko defal lenn la laa koy ñaan man yàlla yéen bi mooy na ma taxaw jàppale ma udoo ma benn néeg Pikine benn néeg Pikine laa bëgg waaw benn néeg Pikine pour ma dégg Pikine la laa gën a bëgg sama àdduna loolu moom ku ma ko defa rek sama àdduna ngi woo tamit mbëri di woo tamit Eumeu Sène di woo tamit Ama Baldé di woo tamit yenn mbëri Pikine ñëpp dañu ma taxaw jàmbale ak ak mairie Pikine Pape Gor gi Ndong ak kenn Ndong baax ak ñëpp ñi nga xam ne ne yàlla may la leen leen la jël sàngoo ko di wër géew bi boo yëmbal mbër mu dangereux la kii xel lay bëre bopp bay bëre moo tax Mor Kankang na xam na am na adversaire tey de. jaar naa la mbër. waaw ñu ngi lay siyaare baba si loo nekk maa lay si fii la ëppee. di la jox sa wàccuwaay. waaw bu wér di la nga am jàmm ndax yow da ngaa war am jàmm ndax gars yi loo soxla fii. yàlla nañ ko bokk. waaw lenn message laaj fa nga dëw mooy wax nii doomu dëkkandoo. waaw maa ngi laajte ñëpp message si xam nga si journée bi xam ñëpp wuyu si ma comme deb comme journée jouru jour ah Tyson 2 bi ak Franc bi ni ñu defoon stade dama bëgg lu raw loolu ñu def ko Kolda ndax maa ngi war a jëm ba Kolda waaw Kolda dem fa yombul waa ju lancer waat message dama gars yi ñëw jàppale seen doom xam ñu def nan daan def ñëw bëre daan jàpp dem ñibbi incha allah waaw kontaan bu baax a mooy combat spécial bi wallaay combat bu doy waar la Mor Kang Kang am na lu ñu koy takkal ca tànk ba boo yëmbal ngay seen na ca kaw mu yor bal bu xonq bal bu rouge moom la bàqu ñaajo maa ngi lay ziar armée bu ngewel waaw Babacar siyaar naa la bu baax di nuyu caméraman bu baax a baax waa di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di wax ne armée bu ngewel doomu doomu gewel bàyyi nii quoi mais combat bi xaw na yàgg mais am na benn moment boo xam ne dañ la woon ndombo ba ma ba ñu ya ñu bëri yaakaaroon ne combat bi jeex na nga génn ci waaw boo gisee war ndomb bi damay kontaan sama grand frère Jordan daan ñoom Boy ñoom Thiat xam nga di kontaan sama gars yi teg lu métti moo tax bi ma wër ndombo sama xel dafa dal comme dama jàkkaarloo moom moo tax ma génn ci facilement quoi waaw noonu mais ni ko daal mën nga cee ñëwaat waaw dama ko bàyyee combat parce que sama manager Mame Niaw Ciss ak sama gars yëpp ñoom Dabdaan ñoom Grand Wali Faye ñoom Joroon lépp loolu lañ ma digal ni ma taxawal nga bàyyi ko combat ak sama supporter yëpp moo tax ma jël sama temps bàyyi ko làmb ji mu ko quoi drapeau Pape Ndour la ñuy bëree dafa mbër génn na de ak jàllaa bi bu weex Tapha Mbeur génn na ak jàllaabi bu weex Mor Kang Kang Mor Kang Kang arbitre soufflé na Boy Yeumbeul à droite ñaari mbër yaa ngoongu taxaw kabar na ko faw seen loxo yi jooññoo mbagg yi jooñ suivre leen combat bi bu baax a baax xalaat naa jël bu am ci de wallaay am naa ci yaakaar boo yëmbal Mor Kan Mor Kan ka nga ba tey nuyu naa koy suivre Equivox TV waaw Mor Kan ka nga ngay avancer tuuti boo yëmbal mel ni ku koy ëkku loolu mooy maa ne jàkk di la xool Mor am na lu mu bëgg daa mel ni jëli la bëgg xawma ma nag ndax dina fa fekk la muy jëli walla bu ko fa fekkee ndax dina ko mën a jëriñoo walla déet kon de su ko jaawale ci biir combat Mor Kang Kang école Cheikh Mbaba dara xewagul dara xewagul xeex am xeex amagul. congu amagul ñoo ñooy supporteru Mor ay supporter taal loolu avertissement boo yëmbal boo yëngal am na boo yëmbal am na lu mu tekki takk ko ca dugal ko ca kanamu ngemb la ndaysaan ñaari mbër yaa nga ca ñaari mbër yaa nga ca eh Mor Kang Kang jël na ko daan na ko oh eh Mor Kang Kang da koo bett boo yëmbal xool supporteru Mor Kang Kang yi boo yëmbal dañ koo bett bëre bettee ginnaaw nga takk na rib ak suuf xool mi mbooloo waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu moor jëm waa moor ku muy seet waa fu moor jëm waa siyaar naa la Babacar maa ngi lay waaw ñuy delloo siyaar bu wér Babacar. xale bi yaa koy tàggat. waaw maa koy tàggat depuis mu am 18 ans. mais ni mu bëree tey. waa dafa am qualité. liggéey na dafa liggéey doole mu ñëw ñu teg ko ci yoon. dafa nangu di te dafa nangu entraîné. kii bëtam xoolul kii. mais daa jël nag mu jeex. non même ñetti son la naroon a tenté. bi mu ko jëlee daf ko wañ mu bañ mu mu jël loxo ba mu bon sam pour jéem a wo rétention ne mu jël loxo ba euh, sarse ko yéeg ko. puisque booy bi dinaa la wax lu nañ ko bàyyi xel day liggéey. nañ ko bàyyi xel day liggéey. incha allah. jaajëf koy ba da sum. waaye moor kankang moor daana boo yëmbal jël ba mu ko daana rëy balde moor kankang jël ba mu daan boo yëmbal a rëy da koo di ko wañ mu bañ mu yokku ko bas ko mu toog waaye bara bettee eh moor kankang bàyyi leen ko xel cey làmb eh, Mor eh. Mor Ziar ziar bu wér-wér. waaw Mor loo defati nii noo bi daa gaaw. bawal bawal laa li ma wax bi abata rek force mu mu dégg ay millions si man ah. barke Sëñ Fallou. loo teg loolu. xam man. man noo daane noo daane. ni ma ko daane. ni mu ko daane. waaw. Mor Kang Kang eh way ndaw. waay waay mbëra ngi mbëra ngi mu mel ni ki Baldé soo bëggee dégg-dëgg daa quelques instants ñu dem ci Ada Fass Tapha Mbeur léegi nag moo taxaw ak benn technicien Cheikh Ndiaye boxeur l'entraîneur de booy Niang mu ngi nii ma bëgg koo laaj Ada Fass ak Tapha Mbeur combat bi tey lu koy ubbi ak lan moo ko war a jeexal coach su Cheikh maa ngi lay ziar. maa lay fay Babacar di la jox sawaa sa waay di wax ne nañ félicité waa làmb tey ku xool arène nationale ni mel xam ne làmb dañoo war a comprendre nga jëmbat si fula dimbale promoteur yi dimbale waaxlu làmb parce que xoolal tey ñaata personne ñoo fi nekk ku fi nekk tey fàtte nga li nga xam ne moom mooy sa euh, jafe-jafe di wax nag si diggante Tapha Mbeur ak tey tey tey ñaari saay-saay la ñu boole ñaari nante mais dafa am nante bu gën a wane boppam muy ki nga xam ne moom mooy Tapha Mbeur moo gën a wane mais aada dafay nëbbu boppam à chaque fois tey man su ma indi woon ki nga xam ne moom mooy Tapha Mbeur dama koy xeexloo ba aada jël ku nga mu door a bëre ji su ma jëlee nag ki nga xam ne moom mooy Ada Fass ndox du bàyyi yoonam ñëpp xam nañ ne tëlewul xeex mais bëre la gën a mën damay bëre ji dinaa la tooñ boo nee bëreet ma juyeloo yow di wax ne lamb ju naqari pronostic la bugguma genre combat yi parce que ñaari xale lañ yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp. dañoo bokk si ñuy suuxat làmb di dundal làmb tey ku daanu rek dama la yërëm. aada loo koy moytuloo. aadu li ma koy moytuloo mooy bëre bi nekk si tafaam euh, xeex bi nekk si tafaambër tafaambër nag li ma koy moytuloo mooy bëre bi nekk si aada faas waaw. tawfeex ak taysiir xéwal gu bëree bëri. yow léegi combat bi arbitre soufflé ko. waaw waa Rock Énergie ñoo ko indi dafa déménagé léegi mi ngi waa Rock Énergie quoi mais dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam rek waaw ndam lu sedd guy mu yóbbaale ko parcelle loolu rek laa Baldé gis nga sa mbokk Baldé gis na mbokkam Jules Baldé maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar rek. sama cameraman bi da daa mel ni mbokkam nga. sama mbokk la waaw. waaw. yéen a bokk ca Fulaadu. ñoo bokk sa Guinée Bissau ñëw Fulaadu. waaw. tey combat lañ jëm dans quelques instants Ada Fass Tapha Mbeur ñaari xale yi ku ci ne loo koy moytuloo. waaw combat neex la. kii de xaar kii dee songu lamb ji war a neex la man ku si xeeb ku si xeeb ban ban ban song la da daanu de. ku tax bañ song la. waaw ah, ah, ku njëkk songu song ku njëkk a song rek mooy jël ndam li. waaw. sa combat ñu ngi koy coow boobu ba tey Ama ak ki nga xam ne moom mooy euh, Modou Lo nan yóbbu nañ ko mois de mars ñu dégg barki dem menace bi ne seen ko seen signature ak promoteur bi le 25 décembre la yem loolu fu ngeen ci tollu waaw lamb loo gis rek xam ne waxtaan la rek après moom manager bi dina waxtaan ak promoteur bi ndax ñoo signé woon ñu day taxawaat déglu rek waaw. yéen da ngeen di déglu sa mbokk waaye ay waay ñebe ngi nii mu sotti ko ni lii boo ko ndambee def ci ay affaire ah day neex mama séeri hélas mu defal ñu ci ndambe ah mama mën na ndambe da nga fay xaaraat rek dégg naa ku mën a xaaraat. waay lal ba rek. <laughs> Mama Tania dafa mën toog macha allah. waaye Baldé xool géew bi ñaari mbër yaa ngi ci géew bi dafa mbër ngi ni taxaw ñu koy sotti boo xoolee lim ngemboo daa zone wala boog lu weex la ngemboo mais am na zone am na rouge bàyyi ci xel kii moom leket la yor di sotti ke la yor ab seetu. kay nga seen mu yor seetu ba Ada la àndal. mais mbër bëgg la. maa maa lay ziar Babacar. tur bi nan la. Valérie Valérie. Valérie. maa am na ci lamb ji. yàgg na. depuis kañ. yàgg na depuis 2017. maa ngi sama 5 combats 5 victoires. 5 waaw maa mujjee ba Boy Sébi fii. Boy Boy waaw maa ko mujjee daan waaw. ba nekk ri nga ne. laa nekk. mais xanaa woowu tur moom. turu Njaago la turu. Joola wala Séeréer. turu Mankaañ la Mankaañ Jama. jamaa ma mankañ kon waaw waaw dija an ba an ba xula di ngal la njaxarna ya ko dundun waaw di won na pocc ko pëtër di ngal la njaxarna ya ko dundun maa sama mo ba jëpp mo ka mankañ jëpp ñu ma jàppale ma xale bu ndaw ma dem ci kanam ak kanam waaw waaw bu na commissaire bu dëkk yëpp maa la di bëggee mooy loolu am na loo ma waxoon am na lu ma la waxoon de yaa woon ma ko ci boot Ndakaaru waaw ma seetlu ne ñoom ñaar seen cumukaay yo sorewul sorewul waaw te ñoo fu ñu ko teg maanaam su ma la mënee wax mooy Pikine la ñu boot xaw ma nag Pikine ay Ndakaaru xaw ma léegi ñu dem ci combat bi loo gis waaw li ma gis li ma analysé woon rek moo ñëwaat tey tey Ada Fass dama koo gis tey ba lamb ji ba lamb ji commencé ba léegi teggiwul tànkam ndax looloo koy may ndam ci bés ba waaye Tapha Mbeur la ma ko santoon ci lamb ji tamit la def ba mu tuusee la gëj dox ci lamb ji ba léegi kon am na fu ñu teg lamb ñaar ku jëpp encadrement gën a liir bés bi mën ngaa daan sa morom ndax tey gàllaaj feeñut gis naa ñaari mbër yëpp joxe nañ gàllaaj feeñut non non non non ñoom ñaar ñëpp joxe nañ normal sarax yi ànd nañ lépp ànd na li ma gis rek mooy tey ji encadrement tey ji su ma doon Ada Fass dama naa ne ko bu Tapha Mbeur teggee tànkam na ko fa teg buy teg war bi sule na dox ci kawam non da ko xeex ba ne du dëgg cokkaas lay doon pour mën a jiyal moom pour bëri mën a ibbeeku su mu doon Tapha Mbeur bu arbitre bi sifflé day daggale waatoo bi serré garde bi ci kaw daa dox ci booy bi nank ba mën a jàpp ngemb gi ndax booy bi tey ji indaale na doole boo xam ne ak mobile boo xam ne nii Tapha bu téyee tuuti mën na ndam waaye bu imposé booy booy ko daan bis boo déggee ñu ne Ada Fass dara Tapha Mbeur Tapha Mbeur da koo imposé da koo imposé waaye bis boo déggee ñu ne Tapha tey na ba jàpp na ngemb mën naa dóor booy bi boo xam nii dina ko jaajëf sama waa ji ko yor léegi Tapha Mbeur Ada wala boog Tapha Mbeur léegi Rock Énergie la nekk waaw mu ngi te keppaaru ñoom Modou Lo ak ñoom jegaan am luñ koy defal ci gàllaaj ba tey mu mel ni combat bu nar a xat combat bu daw yaram ñaari xale ndeysaan ñaari xale yi cey waa Fass taal nañu seen fi mi seen de Fass ak Parcelles ay booy bu leen sànni lii waa lii ndax wóor na waa lii booy yi def ndax wóor na tamit am na lu ñu sànni fi mi ba lañ sànni ca géew ba moytul moytul moytul am na ku koy fay te nga moytu Tapha Mbeur ak Ada Fass am na lu mu téye benn butel la ñoom bu lu weex bii bi combat Balde bi combat cey bi combat Ada rek Ada ngi yëngal rek Ada ngi yëngal rek dafa mbër moom tey daa tekkaaral tax maa ngay naaw Balde fu mu jëm pitax maa ngi war stade bi bi maa ngay naaw ñaari mbër yaa ngongu soose ngay wax ak Ada Fass kookoy soose bu Fass def na lu ne ci làmb wallaay muy nuyu waa Fass Fass Benteñe bu la neexee dem Medina Colobane gël tàppe lépp ci Fass waaye nuyu naa waa parcelle unité 1 unité 2 3 bu la neexee ba 26 waa Dior lépp ci parcelle kon tey parcelle la ak Fass cey lamb tey la dimanche 24 octobre wala boog 31 octobre 2021 Tapha Mbeur leen wan ginnaaw ana ngeen jàkkaar lool Fass ak parcelle avertissement Tapha Mbeur benn beneen avertissement ñaar ci Tapha Mbeur Tapha Mbeur am na ñaar avertissement laa ilaha illallah nuyu naa képp kuy sifre Equivox TV Awa Diop ca Touba nuyu naa la ñu ngay lewaatoo ana am di Moustapha ana Modou Roubé seen ñaari mbër yaa ngongu walluk teen la balde bu kenn jaawale lii billaay ku ñëw ci pindub teen ba ngay yem ñu ngën a tekk di lewaatoo dara xewagul nag Ada Fass pied droite Tapha Mbeur kon jàppal ñaari pied moom la boot ca ginnaaw ngemb la Ada moom lu weex tàll la ngemb loo waaye da ko sotte ko ba mu mujj xal ñu ngay doxe wet mbaa du ñu xeex mbaa du ñu xeex est-ce que du ñu xeex gaay bu leen jaawale lii am na lu Fadam tu waxoon ci combat bi Fallou Ndiaye fi jaar may ñuy may nuyu njaay Ndiaye production Fallou njaay Tafa Mbeng Mor bu Parcelles Fallou El Capo Xaadim Ndiaye Ndiaye production gi yëpp waaw groupe la boo xam ne tamit vraiment liggéey bi ñuy def am na solo parce que tey arène nationale ni mu mel wax dëgg yàlla bi sa som ba tey mu ngi nii door a jar naa wax moo tax mbirit boo koy def xam ko da cay baax ñaari mbër xeex Ada attaqué ko dafa dóor dafa ndoo koy dóor dafa mbër Ada Fass daan ko laa oh! ko ba mu tëdd dafa mbër dafeenu Tapha Mbeur na Tapha waaru na xeex mu daw dajeeg moom jàpp ko oh Ada Fass mu ngay jooy mu mel ni tey combat bi jeex na combat bi ñu bëri li ñu waxoon mooy Ada Fass na privilège sa bëre bi daa mel ni loolu la def Tapha Mbeur jëm na ko dóor mais dafa wàcc daw jëli ko jàpp ko Modou Fall maa ngi lay ziar. noo gisee combat bi baax Babacar xam nga Babacar lamb ku nekk bu defee mëninam rek day am li mu bëgg. Arafas <laughs> dafa njëkk mëninam ci nga xamante ne nii moom mooy Tapha Mbeur Tapha Mbeur ubbi mëninam parce que ko uppercut bu dal. mais uppercut boobu noonu Tapha Mbeur xamoon na ne bu te génn ci lamb ji ci daanu rek lambam day yàqu. Uh-huh. moo tax ba mu dafa wàcc tokkaas bi yëpp li mu bëggoon mooy jaxas ak waa ji mu dóor mu fexe am ci suuf gi parce que mooy ndaama gi waaw. am na solo am na solo kontaan ci jaajëf kon Balde noonu la demee woon boo xoolee ñoom ñaar neexoon nañ ci lépp waaye boo xoolee ñoom ñaari mbër yi nga jàngat combat bi daa mel ni Ada Fass moo ko doon nekk ci biir combat bi début wu làmb ji ba fin wu combat bi boo xoolee tamit looloo feeñ ci biir bëre bi ndax xeex jot na am dóor jot na am waaye boo xoolee Ada Fass la mu mane da koo def. muy bëre wàcc tibb ko bés ko muy bañ mu dolli ko daan ko jël bu leer kon loolu mooy tey li amoon fi nga xam ne moo di ci arène nationale dafa mbër di courage Ada Fass daan na boo xoolee tam ñoom ñaar ci côté doole daa mel ni ci côté liggéey est-ce que du Ada moo gën a pare parce que yaakaar naa ne mbir mi noonu la demee kon félicitation Ada Fass di courage dafa mbër Ada Fass nan ko bàyyi xel kon gars yi di leen jox dig daje rek ci yeneen affaire waaye di nuyu waa Ndiaye production di leen jaajëfal di wax ne Fallou Ndiaye li mu liggéey tey am na solo ndax ku yokkul yaa wàññi làmb jàngoog dafa mbër Ada dan na ko kon Ada Fass jar naa bàyyi xel ci làmb